Ama Deme nuyu naa la. waaw mais fay naa la Baye Fall bi. waaw sant nan sant nan bu baax. félicité ci ndam li nga am sa diggante Gabar Sine. combat bi bëre ngeen yan lan nga ñu mën a wax ci seen diggante yéen ñaar bi ngeen di bëre. waaw mais merci beaucoup kontaan naa vraiment Gabar Sine mu nekk ndaanaan nekka champion bëri nañ yàlla may ñu ndam. mais mu nekk nit ku jàmbaar nit ku gore mais na combat bi combat bu ñu respecté woon la ndax tey sunu dernière sortie ku ne gis na ko dama dugg géej waay am fantam mais joxuñu ma ko man nag ma ne leen damay duggaat géej waay pour def confirmation yàlla nag dimbali na ma la taxoon ma ma ma ma sabablu yàlla dimbali na ma si def naa confirmation bi leer na ko a Gabar Sine gisuloo gisuloo nax stade bi dafa lëndëmoon moment boobu lan nga mën a leeral ci loolu. waaw wax na dëgg parce que stade bi lamp yi tàkkul loolu dama koy dama koy dëggal même man mi man mi di wax ak yow gisuma ko bu baax parce que boo xoolee saa bu attaqué damay arrière parce que gis-gis bi demewul woon noonu parce que loolu tamit war na see mën a dimbali ay risques yu mel noonu xam nga ëpp na di jël quoi war nañ di mën a xaar ban taal lamp yi. parce que ay loxo di jóg ay coup xam nga ñu ñu koy ñu koy bëree ak ak ak ak fu leerul loolu c'est pas normal. est-ce que yow mbër mi mënoo woon jël ses responsabilités bopp ne bu stade bi lamp yi ci leeraay bi du ma bëree ndax kenn du sacrifier sama combat. waaw xam nga instant boobu ñun mënatul si dara parce que arbitre ñoo ngi ñuy profité ne def leen lu gaaw lamp yi courant amul kon donc ñun liñ man rek mooy profité pour libérer wu pare sunu combat moom Gabasine li ma gis moom moom loolu la gisoon mais nekk na yoo xamante ni non loolu dootuñ ko jël parce que loolu c'est pas normal coup boobu mu jël man mënoon naa kaa jël te noonu lay demee ah kon donc nan nan nan nan respecté mbër yi quoi. damay dem fan la jëm. guy nan ñëw nu bëre. guy gii Lac de Guiers 2 nan ñëw nu bëre. damay dem ñu ngaa jël avance guy gi wala Lac de Guiers. xanaa déggoo ma ñoom samay morom lan maa nekkatul fii di bëre benn boy ñooñu samay morom lan nan ñëw nu bëre. ku def ku def vingt combats vingt combats laa def trois défaites amul kenn benn benn mbër bu ma fi gën a baax palmarès xëy na nag yàlla moo dogal sama yoon xaw a yeex mais li ma gëm rek li may faral di rek bu yàlla nee waaw non léppay changé incha allah ta gëm naa dina changé. waaw kontaan naa côté yooyu la. Ahmed Deme da koy tere. koy tere. <laughs>